TP TV suñu momeel TP TV télé askan wi TP waa àddina asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum rawatina seetaan TP TV tey nag ñu ngi fii nii ci euh, mairie kay Guédiawaye yéemeeg euh, le 21 kay juillet euh, ci foire bu mag bi nga xam ne waa pi kay network ñoom ñoo ko organisé mu nekk foire bi nga xam ne kay nit ñaa ngi fi jóge partout raison yi euh, xam naa nag euh, dañuy dugg wala kay wan leen kay ñu nekk ci biir ndax booba léegi gaa ngi commencé dugg si daanaka sax boo xoolee mbooloo mu bëree bëri bare takkul na fi kon naa ko léegi yow da may topp rek mu dugg ci biir wala kay ñu xool ki euh, nekk ci biir afuwaar bi. يجب يبلغ من الحرية الإيمانية Thank you. Jadi dua sibin dan buat enam sibin mengubah sas Khadim Sek. Eh, sas Khadim Sek moo ñu dugal ci ci pii bi moo ñu invité ñu ko ah, ñu gëstu leer ñu naan ñu dugg si mu doon lu am am solo muy pii work, kana ñu gis nag njëriñ njëriñ lu yaakaaru ndax day defar réew day defar gox day defar nit ndax defar gi mooy day fexe ba nga ku fekk nga ñàkk mu fexe ba nga am ku fekkoon nga am mu yokk sa mu yokk sa koom-koom kon li ñuy def mooy di ci woowaat ñi nga xam ne bokk guñu si wala ñi nga xam ne xamaguñu ko ñoom ñëpp ñu ngi woo ci Pire Network di leen wax na njëriñ la di leen wax am na solo di leen waxit ne euh, lu baax a baax a baax la ndax luy soqali am réew la luy jëmale réew ak kanam la te it euh, loo xam ne àdduna bi yëpp ñoo koy defandoor muy Pire Network euh, monjo bi yëpp rek bëri na ay dëkk yu bare bari yoo xam ne ñoo ko sekk nekk ay pionnier di doxal ci Pire Network kon nu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax nekk ci bés bu am solo bésu Euh, bi sa fowaar jënd ak jaay lo xam lepp lépp lañ koy défé lekk ak naan yaangi fi matériel yaangi fi terrain yaangi fi lepp rek en pays ñu lañ jaajëfal bu baax a baax a baax. oui bonjour tout le monde bonjour chers leaders bonjour euh, les membres de Pi Network Sénégal euh, moi je suis Cheikh Tidiane Diouf euh, je suis le juriste de Pi Network Sénégal euh, actuellement nous sommes au niveau de la foire de Guédiawaye à la mairie de Guédiawaye parce que nous avons des invités qui viennent de partout au Sénégal, parce que les pionniers sont partout au Sénégal. Donc euh, c'est une organisation internationale. Nous qui sommes là, nous, nous sommes les représentants de pi network euh, International. Maintenant, Pi network Sénégal veut développer des activités dans des, euh, dans des régions, plus particulièrement au niveau des 46 départements du Sénégal. Donc nous qui sommes là actuellement, on a beaucoup, beaucoup de partenaires qui viennent de partout par rapport à, notre, notre activité phare on dit actuellement euh, les échanges de Pi. Donc qui Pi est, une monnaie électronique, donc euh, il y a des, des, propriétaires, des promoteurs euh, fonciers qui sont là pour nous présenter leur terrain. nous, nous avons des objectifs à créer aussi des, des, cités des pionniers. Il y a des promoteurs qui viennent avec leurs produits. Donc tout à l'heure, vous allez voir les échanges de produits en PI. Donc euh, ce qui est inédit et on n'a <laughs> jamais vu. Donc euh, nous invitons partout, nous invitons les gens pour qu'ils viennent adhérer euh, à Pinebourg Sénégal parce que c'est actuellement une révolution financière et on va voir que l'avenir vraiment sera radieux, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam mais nag bi ma ci duggee ba tey léegi gisuguma si leen loo xamante ne réccu naa ko avancement daal laa ci gis te gëm naa projet bi te xam naa ne projet bi tamit euh, euh, am na solo te xam naa ne dinañu yóbbu foo xamante ne ni ñun moom ñëpp moom lañ doon xaar waaw projet bi moom wax dëgg yàlla projet bu baax la waaw. nan ah, gisee moom ni euh, projet bu bu baax la wax dëgg yàlla waa parce que daal. si ñi ma gis daal amul amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te incha allah lépp luñ bëgg dinañ ki ci am dañ ci am daal loo xamante ne kawe na suñu njort daal waaw. sama mbokku jigéen li ma lay eh, soññ maanaam ñu eh, gën a ñëw wuyu si projet bi comme saa nga xamante ne projet bi projet bu baax la eh, am na avancement daal loolu daal suma ma sañoon daal sama mbokku jigéen ñi daal dinañ ñëw dugg ci. projet bi xam ne projet bi am na avancement daal waaw merci beaucoup. taxaw taxaw foofu hmm. importance bi nekk ci biir. Hmm. bi nga Pi Network Pi Network pour ndaw pour mag la amul mag amul ndaw Pi Network mii ne kese nga ciy def minage bi nga ciy def amul sax connexion. heure bi ngay connecté ngay taal sa portable nga connecté wu bu la neexee fay sa portable ba 24 heures nga taalaat connecté donc kon connecté connecté moom ñëpp ay connecté wu di TikTok ak leneen ma ne képp koo xam ne nii néew si doole nga di xalaat loo tukkee wala ngay xalaat loo yore sa famille duggal Pi Network benn pii mën na defar ab famille waaw parce que un kii un pii égal 314 159 dollars ben dollar wala nek 600 francs nga multiplier ko mu jox la ay 204 millions kooku alal ju bari la. ni ngay def Ben, am ben prix da ngay télécharger application Pi Network nga mu mu jox la pays yi nga def Sénégal Ben, nga def Sénégal mu ne nga yow Sénégal la nga ne ko waaw mu ne def numéro téléphone nga def eh, indicatif Sénégal def numéro téléphone def sa tour. def sa sant def sa prénom def sa mot de passe.

bindal Pi Network mu jox la. mu jox la option mu jox la option nga topp ko def li mu la laaj commencé nga doo ci fay dara laaj laaju la dara boo demee boo ci yàgg na ñu contrôler ndax yow nit nga kuy dund rëboo nga. wala dañoo falsifier sa euh, téléphone euh, sa numéro euh, sa dentité fekk ku faatu lañ jël dentité yooyu yëpp nañ ko seet. sécurité est-ce que am na sécurité. parce que Pi Network du blanchir l'argent Pi Network da lay génne boo amee ñaari ñaari compte Pi Network da lay génne dégg nga te def lay sécurité plateforme moom sécurité la am kenn mënu laa arnaqué tant que génnoo plateforme Pi Network. Colobane Pi Network kenn mënu koo arnaque boo ci nekkee kenn mënu cee dugg ba di la arnaque kon Pi dafa garanti ba pare utul jàng man sama njàng soriwul te maa ngi ciy def li ma bëgg a def kon même ñi nekk ci àll bi di sàmm di béy nañu miine Pi Network def leen indil possibilité jox leen rendement ñu def lépp lu ñu bëgg dañ koy mën a def bu dee da ngay béy commerce ngay def dangay sàmm lépp rek. benn pii boo ko ci financé da ngay dimbale sa waa koñ yëpp yëpp te loolu laa fa yéene nag man fa ma dëkk parce que man waxuma la cent pii waxuma la mille pii mais li ma am ci pii su ma la ko wedd te wóor na ma ne benn ñaari pii munu ma koo lekk sama dund kon ñi ma wér ñoo ko waral benn borom xam-xam nee na bu la kaas doyee ñu jox la paan xamal ne pour yow dong du pour yow dong pour ñeneen ñi la maa ngi leen ñaan yow mii boo duggul fii dugal boo demee tamit koo xam wax ko ko mu dugg waaw maa ngi Tuubaa nag disponible naa ci pionnier yëpp sama at yii mooy wane ne mag ndaw ñëpp war a miin a Pi Network toog leen ñu topp liste bi ñu woo leen ñëw kii bi rek. waaw ah. loolu ñëpp duggaat foofu. Ah. soo dugg fee kii woon rek baax la doon logo bii rek. xaal xaal bi xaal waaw baax na. jënd nga boo jënd. Euh, man maa ngi jënd bi. huile huile bi huile bi laa jënd. huile 5 litres. waaw 5 litres bi moom laa jënd par pii waaw. ah.

ñu topp liste bi ñu woo leen législatif bi la fi defoon la fi la wala. fii toog ngir yàlla ku ma wax bi mu la. ku ma wax bi mu la. waaw man maa ngi tudd Papa Abdou Samb ñu wax leader Papa Abdou donc maa ngi jóge Thiès. Euh, le représentant de la région de Thiès, le P Network Sénégal. Euh, ça fait cinq ans que je ni maa ngi ci quoi donc moi euh, mooy Pape Abdou le leader Pape Abdou Sambou, n'est-ce pas comme nous connaissons ñëpp euh, je suis le représentant de Thiès euh, de la région de Thiès n'est-ce pas de Pi Network Sénégal waaw ah, Wow, en fait depuis 2019 euh, dama suis euh, le monde cryptographique donc suis crypto-monnaie donc depuis que j'ai entendu parler depuis Pi, le euh, leader Ibrahim ma intégré ma envoyé son lien d'invitation ma intégré puis créé mon compte je depuis 2019 donc nous euh, dem muy développé nous avons une communauté muy développé wu ba ma euh, n'est-ce pas l'actuel bureau du Sénégal le euh, leader Gadio leader Abdou leader Nabi leader Eric Baye Abdoulaye Ning, mi doon wax sànq hein, les pionniers de Touba qui m'ont dit, ni mais depuis qu'on s'est connu nous constitué n'est-ce pas un bloc ngir bëgg développer puis network du Sénégal commencé di instituer euh, instaurer des fois foires n'est-ce pas un peu partout dans dans l'intérieur du Sénégal ba foire bii ñu def une foire nationale organisée par n'est-ce pas la région de euh, de de Dakar waaw donc euh, puis en quelque sorte noonu laa ko a résumer ci sama parcours ci biir ok. Mais lan nga tu a ci PII network Chess nous faisons fay doxee. waaw network Chess euh, ni mu fay doxé moy j'ai créé deux groupes parce qu'on parle de la région de Thiès y a p Network Thiès moi Thiès ville euh, Mboro Tivaouane gaï ak Khombol. moo du P Network Thiès y a p Network Leaders qui Momo, euh, euh, le département de Mbour et la Petite Côte en général donc ñi ngi ci biir ñi ngi doxal ñi ngi am ay daje ñi ngi def ay conférence ñi ngi def ay vidéo conférence di waxtaan ci biir groupe yi ñi ngi wootante ñi ngi jàppale pionniers yi ku ci am problème technique wala de cadre général n'est-ce pas ñu concerté wu waxtaanee ko fexe ba loolu doon sa problème ñu daal di koy saafara ku ci am loo comprendre ci plateforme bi ñu formé la ba incha allah pratiquement ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi digg daal bonne condition mën nañoo seen bopp pratiquement lépp

195 millions yu manqué la Ben pays nga presque 10 jours de ménage Et bi Abdou on est dans notre mindset ouvert au niveau euh, du Sénégal à notre euh, euh, au sein même des pionniers sénégalais parce que vous faites un terrain, par exemple mën des def échange Je jox ma un article ma jox le prix mais sunu mindset c'est ouvert am a un marché ouvert. ñu ngi def ay échange foire bi lan la ku fi ñëw lépp loo fi indi pii nga koy jaayee ku fi ñëw di jënd prix ngay jëndee amul c'est cent pour cent prix amul CFA amul dollar amul euro c'est cent pour cent prix y a des ba Baye Ablaye ñu ngi wax na ko léegi ki fi jóge léegi wax na ko y a des terrains ay TF la titre foncier am na ay terrains am na ay euh, électroménager frigidaire ventilateur congélateur climatiseur am na ay lal am na ay yére ay dàll ay takkaay lépp loo xamante ni nit da koy soxla dans sa vie am na ci foire bi te dinañ ko gis après te lépp ñu ngi koy échanger pi mais kon loolu te munu yow da ngay miner rek application bi ngay implémenter ci sa téléphone. ki nga xam ne mu ngi jël mbëkk mi mais lu mu dee dee def na ci benn 1 million ba 500000 au minimum am na téléphone smartphone mu ngi connecté wu mais bu toogoon Sénégal jënd 500 francs connexion daa di télécharger application Pi Network commencé miner Pi. mais en un an dootul soxla ku nekk Europe bu ñëwee moom moo koy wecci waaw noonu la demee ñu toog Sénégal te xam ne yàlla moo nu indil njamala moo xam ne man nañ cee ndawalu ñun ñëpp te day des waaw Pi Network dix Pi bu duggee ci une famille ñoo ils sont peinards pour tout la vie te fi mu toll nii di nga gis ñoo xamante nii benn famille nga gis ci dix personnes yi mu ne un quartier ci cent personnes yi mu ne une ville nga village, par exemple un village par exemple y' a plus de 5 yu fa xam yo ku ci plus de 100 mais bu la yalla te ap kopp ndox doy la dala le na bu ne yow ñaari pieds, wala ba doy na pour toute ta vie suñ borom jox la 500 c'est mais sa de yi sa mbokk yi mais tu dañ nous, les sacerdoce network Sénégal développement gouvernement on va travailler direct avec eux Inch'Allah rabbi parce que c'est des perspectives dinañ dem vers eux dinañ leen présenter le projet puis mais de toute façon le gouvernement développement pêche sàmm lépp loo xamante day laaj ay koppar ñun ñu génne ko teg sur la table ànde ko ak ñoom bu ñu développé suñu réew waaw loolu lañ ci bëgg jërëjëf. Euh, fii di fii si mairie Guédiawaye donc euh, liñ fi boole mooy que ne foiru Dakar la donc euh, duma def lu dul présenté wu di wax ne maa ngi tudd El Hadj Pathé tey ñun waa Dakar Donc, je suis le représentant de Dakar, de Djamil, Mustafa Djamil Gay. Je connais l'un de Ce que je suis le représentant de que nous avons tambalé en 2021. 2021, nous avons tambalé sur une salle. Mais avant ça, nous avons tambalé sur ce que je WhatsApp, qui est 221 pionniers. 221 pionniers, bobu nonu, nous avons créé le 21 février 2021. Bobu nous avons du en projet Pi Network. Du dougou en masse, nous avons en un moment donné 221 pionniers, fess. Nous avons créé annexe 1, 221 pionniers. Bien que maintenant, Rasoul Sow, moom coordinateur national bu Pi Network fii ci Sénégal bu ñu weesoo foofu encore ñu dem ba groupe boobu di bëgg a fees foofu lañ amee li nga xamante ne certification Pi Chainmail e Pi Chainmail e mooy li nga xamante ne Pi Network Pi monnaie bi ngay miine pour nga mën ko utiliser jënd ak jaay application bi nga xamante ne moom la chinois yi créé tuddee ko Pi Mail. E foofu lañ une certification bi la yenn pionniers yi nga am nañ mu takku Pi Network donc nous lañ rejoindre li communauté Pi Network bu Sénégal donc ñu ki nga leader Aline Badara actuellement euh, aux États-Unis ñu sommes koy parce que mbolo mu takku mo ci mu jël li nga xamantene ne moom mooy groupe ko si li nga xamantene moy communauté Pi Network bu wesso lolou si lañ dem ba en un moment donné encore xamné kat WhatsApp mënuñoo contenir Non lañ def rejoindre li nga xamantene moy Pi Network Sénégal officiel bu Telegram parce que Telegram mën na jël jusqu'à 15000 membres lolou motax nak ñu jema xol xolat xamne kat ngir Sénégal doxal li nga xamantene moy mooy Pi Network fi ci Sénégal non lañ def gennaw ba Sénégal dafa séddale bopam ay patch manam moy région non lañ xolé dressé li nga xamantene moy mooy région yi région yi Sénégal 14 la ñun ñu toftal ci li nga xamantene moy 15e bi tuddee que la diaspora parce que Pi Network pour monde bi la monde bi donc c'est composé en continent ci bir continent yoyu, donc si le dëkk yi nek légui nak fofu lañ xol nekkat pourquoi pas Pi Network bi ñuy doxal bir Sénégal ñu bolé si ñi nga xamantene mom moy émigré légui buñ ñëwé fofu non. gennaw noonu défé AG virtuel ñu xol gennaw ma si gënon touti gën engagé wu ñu jiital ma ne dans l'unanimité yow lañ fal comme président loolu nag ma rafet rafetlu bu baax a baax bi diis na nag waaye oyof na ndaxte communauté bi ñoo ci jàpp macha allah bu weesoo loolu lenn lay mëna def moy que né damay présenter bureau bi naka la teudé donc man lañ jital ci kanam comme président ici au Sénégal comme rew mu nekk ci biir Afrique amna président Bir Afrique aussi tamit dafa communauté qui P.I. Network Leader Afrique donc mom moy teunk rew mu nek ñi ci communauté ngeen chaque dimanche soir à 15 h ñuy def ay réunion pour sensibiliser li nga communauté africaine bi équipe principale bi

Olivier Mom tamit amna na ku muy liggéeyal fii ci Sénégal moy leader Abdou ambassadeur mom la ñëpp xam mom mooy ambassadeur Rahman Ba dika jaajeufal bu baaxa baaxa baaxa baax amna baax am lu mu liggéey lu bëri ci biir communauté bi donc bu wéso lolu donc lepp li ñuy ñu ngi koy liggéey ci walum digital parce que li ñuy liggéey mooy que né projet la projet digital la projet digital moy lan Pi Network Pi Network ba muy juddu dafa am lu mu fi fekk mooy que ne cryptomonnaie cryptomonnaie boobu noonu pour nga amoon ko il fallait que nga génnee sa xaalis te ñun ngalawaay fii kenn doonu fi millionnaire kenn doonu fi milliardaire ñun ñëpp ay néew di doole lañ loolu la ki nga xamante ne mooy Nicolas Kokalis di ci créer projet bi loolu la bëggoon loolu la si namoon donc réussir na ko bi mu ko réussir dane yéen communauté bi yéenay doxal projet bi projet bi nag pour ñu doxal ko si la voté li nga xamante ne moom mooy euh, réew mu nekk yaay voté pii bi ñaata lay doon naka noonu ñun ñëpp xam nañ ne Chine moo ëpp si àddina bi macha allah noonu lañ jëlee raw gàddu gi génnee benn pii égal à trois cent quatorze mille cent cinquante neuf dollars léegi ñun ñëpp si lañ tënku. ngir mën def ay échange la mo waral échange bi moy que ne gennaw bi nga jëlee application bi télécharger ko ci sa téléphone mu lay may compte à rebours de 24 heures pour nga renclencher li nga xamantene mom moy sa mine procédure de minage procédure de minage bobu noonu chaque 24 heures day fay mais yow sa jëmi bop yow ya kay jël activer ko parce que am na liñ naan ay bot bot mooy robot am na ay robot yu daan miine loolu la core bi xamoon bu njëkk ci yeneen crypto yi pour mën ko écarter si yoonam ngir projet bi fiable moo tax monde bi yëpp actuellement fu mu nekk nii ñu ngi koy miine pour nga xam si dara boo yoree li nga xamante ne mooy Android da ngay dem Play Store nga tàppe Pi Network boo tàppee Pi Network di nga gis nombre de téléchargement bi foofu gannaaw loolu encore bo yoré li nga xamantene moy iPhone da ngay dem fi nga xamantene moy App Store bo duggé di nga xol côté App Store application bi ñaatal lañ ko téléchargé foofu bo boolee cumul bi yow sa jëm bop di nga yému xamné projet bi kat communauté bi nga xamantene ne Nicolas ak Cortim bi mom lañ jël tek ci seen loxo ñu ngi koy doxal.

Pi Network nekk marché Pi Network mooy lépp loo xamante ne yow pionnier bi soxla nga ko ci sa dund moo xam kër gu bakkene moo xam chaise bu confortable sama maam jee am tawre mu tànk ngir mu am ci chaise boo xamante ne moom moo koy maase loolu noonu yëpp dañ koy coté ci li nga xamante ne moom mooy boutique virtuelle bi bi ci raw bi jël raw gàddu gi moom mooy Pi Chaîne Mail mooy boutique virtuelle la kan moo ko créé chinois yee ko créé ñoom ñoo koy doxal moo tax projet bi mi ngi juddoo aux États-Unis waaye ñu ngi ko génte en Chine moo waral chinois yi jël raw gàddu gi trois cent quatorze mille cent cinquante neuf bi nga xamante ni ñun moom lañ tënku tey léegi nag ngir mën a doxal projet bi fii si suñu biir réew gannaaw ba gis nañ suñu yi nga xamante ne lañ leader Afrique ñu ne Sénégal foo leen toll ak loo leen di xaar gannaaw ba suñu na benn moment ne pour nga daw làqatu sax problème la parce que projet bi mi le 14 mars 2019 deux ans trois ans après mooy 2021 2021 suñu réew basculé

tey ngir mën utiliser suñuy pi am kenn ko xamantene ne yalla baxal baaxal macha allah am mbooloo mu takku bu responsable fété ci gennawam ngir ñun lepp lo xamantene tok nañ ko depuis 2019 ba légui ngir ñu mën ko jëriñoo am ko yalla baxal di soxna si sama wet di soxna soxna nday Fatou Dieng madame Fall bu partenaire bu. GBI GB GBI Madame Guyaar business IMO donc ñëw jox ñu loxo que ne man kat am naa lii ci sama am-am waaye dama ko pour communauté Pi Network bu Sénégal loolu mooy lan tay partenariat bobu Non. donc meun nañ ne mom moy euh, la pièce maîtresse su foiru Dakar bi donc loolu dama ko koy jaajëfal bu baax a baax donc au nom ci samay kàddu communauté Pi Network donc chef d'entreprise Goyas Business Imo communauté Pi Network jaajëfal nañ la gennaw bi nga nuyoonteeg ak sen président ngir ñom ñu mën a jëriñoo ci li nga xamantene moy Pi Network parce que miine ko mu nekk sa téléphone t'a amon foo ko mën a utiliser rawatina nga andil ñu que ne parce que woro ba ans di nekk sa suufu kër madame Fal yombalal nañu ko mooy que pour bàyyi ñu ak li ne foncier lu jëm si wàllum foncier foncier mooy terrain des parcelles parcelles

ki nga xamante ne mi ngi romb a gis affiche yi di dugg ñëw toog xam bu baax naka la demee tey mu ne kat damay dugg si projet bi ndax lii nga xamante ne mooy suñu partenaire bi indi ngir mu mën ko jariñoo donc damay bàyyi moom si suñu partenariat bi mu gën see xóotal donc madame Fall. sant suñ ñaari waajur ñu ngi nuyu mboolem jullit ku fi nekk ku góor ak ku jigéen mboolem tarixa ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare di nuyu suñu yaay yi ak suñu papa yi ak suñu mag yi ak suñu raq yi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo président mu tegal ñu ko ci loxo waa kër gi yëpp parce que fii mën nañ ne ak njabootam ñoo fi nekk ndax kër goo dugg rek am na koo xamante ne si moo fa jiite. ginnaaw loolu tamit ñu ngi nuyu suñu responsable yi nga xamante ne si ñoom lañu àndal ku ci mel ne soxna maa Asta Mbàkke ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare mu ngi jóge ba Touba di nuyu monsieur Ousmane Diop di nuyu tamit soxna Diop mi nga xamante ne si macha allah mën nañu moo fi teewal tey président de la république ndaxte macha allah euh, rakk la ci Serigne Assane Mbacké te liggéey bu am solo lay def Touba mu nekk femme de développement soxna Diop nañ ma ko tàcc bu baax. di nuyu monsieur Thiam mi nga xamante ne si mooy coordonnateur bi nga xamante ne si moo yor Guyar business Imo. moom tamit ak Abo Dieng ak maam Cheikh mi nga xamante ne si mooy secrétaire général di nuyu ñëpp ku lim dangay ngay juum ñu ngi tudd soxla Ndeye Fatou Dieng dëkk nag Touba Daaru Minam waaye tamit ñu ngi fii Dakar di daan suñu doole jiite entreprise bu ñuy wax Goyar business imo Goyar business imo nag li mu ëmb dafa bëri waaye tamit ñu ngi ko ànd ak suñuy partenaire yu tudd Santifa di nuyu tamit monsieur Sow mi ngi ba États-Unis nga xamante ne si lépp lu ñu soxla si foncier bi mom moñu koy jox mu nek lo xamne lu wóor la te lu leer la ñu yor nak ay site yo xamne site yu am solo la lu melne mbambi lor lu melne ne Rose lu melne Mbour len lu ci nek am nañ fa ay hectare yu yaatu mu nek tamit lu wóor ta leer nga xamne ñun ñoy viabiliser ñoy duggal courant ñoy duggal ndox te lépp luñu teunk ak yéen ci contrat bi inshallah rabbi fess nañ ko yene respecter guyar business imo nak day yëngu ci coopérative. di jàppale doomu aadama yi pour ñu mën a am kër ndax ku nekk xam ne ne suñu papa yi sonn nañ suñu rakk yi sonn nañ suñu mag yi sonn nañ ndax kenn ku si nekk tey kër moo la sonal bu weer deewee rek sax xel mi dootu nekk lu dul fay location te ku ne xam na ne fay location dafa metti te tey ñun tamit am nañ si pas de responsabilité pour mën a taxaw pour mën see génne suñu yaay yi ak suñu papa yi ak suñu mag yi ak suñu rakk yi loolu mooy suñu engagement suñu liggéey bi ñuy liggéey bi nga xamante ne si nag euh, pii egsi na si ñun joxante ak ñun loxo ndax fekkoon na ñuy leble ay terrain fii ba 10 ans fukki at ñu di la ko dagg ndànk-ndànk chaque fin de mois 24 mois ñu jox la sa terrain nga tabax dëkk di fay ndànk-ndànk ñun Guyar Business Immo ci loolu la ñuy yëngu. léegi nag dañoo pare pour ànd ak yéen liggéey bi liggéey bi nag nekkul liggéey boo xam ne liggéey bu yàkkamti la ndax yaakaar naa ki nga xamante ne si moo sa bii kooku nekkul loo koo xam ne lu yàkkamti la parce que 2020 ba tey wala 2019 ba tey ñuy toog di xaar di miine toog di di am yaakaar. ñun tamit dañuy toog am yaakaar te doyloo yàlla suñu borom ndax li ñuy def ndax liggéey bi ñuy liggéey nii nekk na loo xamante ne si mën na ne jaamu yàlla moo si jiitu ndax dañ ne liggéey ak jaamu yàlla te nit ki boo amul kër doom sam xel du mën a dal ba nga mën a matale li nga xamante ne si moom nga warloog suñu borom boo amul xaalis boo nekk sa poos sa jaamu yàlla day des kon yàlla nañu yàlla may kër te may loo xam ne bu ñu làmbee suñu poos dañ koy daj loolu la ñuy suñu papa yi fas nañoo yéene jàppante yéen lépp loo xamante ne si lu ñu waxtaanee si fii incha allahu rabbi comme ni ma ko waxoon sànq danañ ko fas yéene respecté incha allahu rabbi te bu si am lenn looy tiit ndax lépp loo xamante ne si lu jëm si wàllum euh, si wàllum état la bu ko kenn tiit loo xam ne lu jëm tamit si wàllum foncier bi la tamit bu ko kenn tiit ndax ay titre foncier lañu yor yu leer naññi loo xamante ne si képp kuñ si dugal doo si am benn problème am plus tamit dina am ay garantie yu leer naññi. ndax santifa bi nga xamanteni ni si ñoom la liggéeyal yaakaar naa réew mi fi ni ñi fi joggé ak ñi fi tok tamit kenn yebu leen té kenn musul leen lañ bët té ñom si lu leer lañuy dox ba tay tamit dañuy tabax ay kër dañuy tabax ay kër di joxé ngay fay dank, ndànk ba heure bu sa xaalis maté nga jël sa kër wala bu kër gi paré ñu jox la ngay fay di ndànk-ndànk di dëkk avec pi nak dafa nek lo xamanteni si ñëpp dañ ci am yaakaar ndax man na ni saal bi ñu fi nek ñepp fi ñu ay milliardaires yu fi tok la ay milliardaires la jàkkaarloo loolu waaw ay milliardaires la jàkkaar loolu waaw parce que kon milliardaires yi kon war nañ leen wutal lu mucc ayeb wutal leen ay terrain yu baax wutal leen ay keur yu baax ñu am ay auto yu baax legui nak ku sonnul ku ñakul do jariñu te ku gëmul yalla do jariñu ku tok naan ay nax la ba tax nga tok di xaar madame Fall Ousmane Diop Euh, di leen gërëm yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci seen tur ak seen sant di leen wax ne réew mi toll na foo xam ne kenn ku ci nekk ci ñun da nga war a dem ci sa xel ak ci sa xalaat xool li lay jëriñ nga nekk ci Sénégal pauvreté bi metti na mettiwaay boo xamante ne bii li yàlla xam doy na te yàlla dogal na pii bi mu fi ñëwee ak léegi ñi ci gis seen bopp bari nañu te yéen ñi nekk ci salle bi yëpp li ñuy ñaan yàlla mooy ngeen fas yéene gis ci seen bopp doon ay milliardaire yor seen i kër yor seen i oto comme ni ko madame Ndeye faatu Dieng waxee parce que réew mi moo toll foofu tamit di leen wax ne avec PI tout possible avec nday faatu Dieng tout est possible parce que fii ñu toog kenn ku ci nekk ci yéen balaa nga fiy jógee war ngaa mën adhérer comme niñ ko waxé ak nga dugg ci application bi comme niñ ko proche collaborateur, yi ngeen xamné mom ngeen ci seeni biir entreprise ak seeni kër seen biir famille kenn ku ci nek bo xamal lan parce que pi amul len lo xamné structure la bo xamné fi ci Sénégal mi ngi dox gëna a am doole pi ñàkk xam rek fi ñàkk xam rek moo fi nekk te yaakaar naa ne yéen ñëpp kenn ku ci nekk balaa nga fiy jógee dèjà mën naa ne sax jot ngeen ci xam loo xamante ne bii mën na indi mën na leen indil njëriñ boo xam ne njëriñ bu ñoŋ la di leen remercier xam naa ne sama wax lu ci bari di leen remercier yéen ñëpp kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu jërë ngeen jëf. jamono liggéey jamono liggéey la ñu nekk liggéey war na góor One of pity game. For what I take you, take you off, they know why. Make a cheap palace, what a ligate, ligate, oh. Bismillah, Hasaro obule bestemnam bebenendiñow mani xamulolu mu àndal mani tàkku P Network Sénégal. voilà Tay, vous êtes ci lancement bi au niveau de Dakar. comme gannaaw bi nga defee décision tuuti. est-ce que vous nga dellu dire ci li nga xam ne moom sabab jotaayu ah, merci beaucoup donc nous fi dajale woon mbooloo mi di Network Sénégal. donc nous leen fi dajale ci pour magnifier li nga xamante ne mooy foire de Dakar donc gannaaw Touba le 31 mai bi passé donc tey ñoo woote woon euh, le 21 juillet fii nga xamante ne mooy mairie Guédiawaye donc pour woote jëmmal li nga xamante moy projet Pi Network biir Sénégal. Euh, projet Pi Network lan la donc projet Pi Network lenn la c'est un projet cryptographique manam noy lo xamante comme par exemple li nga xamante pour le BABA ma tambalé fofu moy yow mi nga xamante ne yaa ngi yor sa téléphone amna compte bu ci nek mo xam Wave la wala Orange Money donc bo xolé di nga gis ben code pictogramme bo ñëwee pour envoyer la donc damay scanner donc lol non ñuy def looluy message cryptographique message cryptographique boobu boo xoolee au plus profond naka nga koy amee xam nga fële da ngay sa xaalis google mais fi dafa doon ben application boo xamante ni ñi ko créé Cortim ñu ngi leen tuddee Cortim bi équipe bob léegi naka ngay def mooy que ne da ngay jël sa téléphone télécharger application bi ñu Pi Network Pi Network nga dugg dugal say filiation bo dugalee say filiation dina la may benn compte en rebours de 24 heures pour nga mën a miine li nga xamante ne mooy monnaie pi bi maanaam miine mooy lan miine mooy lan boo xoolee li nga xamante ne mooy or diamant fer richesse la moom lañ naan dina la monnaie de Dieu donc da ngay gas pour jour ko c'est la même chose mais day am procédure boo xamante ne de euh, compte compte à rebours de 24 heures pour mu arrêter de telle sorte que pour nga enclencher waat ko

li nga xamantene télécharger téléchargé ko boko télécharger téléchargé donc dougal ces filiation bo dougalé ces filiation minage bi lan la cinq secondes sax mënu ko durer il suffit tout simplement bouton de minage bi ngay cliquer pour régi pour pour mën a li nga xamantene moy moné bi après vingt quatre heures fofu ngay mën enclencher enclenché li nga xam procédure de minage bi juste ça. noonu yan opportunité la mën a indil ki nga xam ne moom utiliser. merci beaucoup yow mi koy utiliser gennaw bi nga xamantene dang koy miiner ba paré donc lan la. mi ngi mel ni tey sa compte Wave sa compte Orange Money da ngay dugg ay select di ko fay donc oh, loolu tamit benn opportunité la opportunité la donc opportunité boobu tey suñu partenaire biñ taxaw di GBI IMO GBI di Global di Guyaar Business IMO moom tey yokk na opportunité bi gannaaw écosystème bi biñ créé biñ créé li nga xam moy écosystème bi écosystème bi moy que ne yow muy tok sa kër am na loo soxla lépp li nga soxla créé nañ ay ay application yo xamantene donc moy application ci biir écosystème bi lepp lo soxla mi ngi ci biir de telle sorte que yang koy fayé ak monnaie bobu nga miné non la mel. Euh, loolu ci Afrique rek la yem Sénégal rek la yem wala monnaie la bo xamné dafa international. monnaie la international. monnaie international et pour vous prouver cela moi que ne kortim bi ñoom ñoo créer, créé biñ ko créé donc dañ ko jël bàyyi communauté bi pour ñu doxal ko communauté bi au fur et à mesure ñu ci dugg monnaie bi di gëna am doolé parce que monnaie lan la mi ngi basé aussi li nga xamné moy confiance parce que li nga xamné ne billet bi nga xamné ne ñu ngi koy gis dañ koy wéccio jamono ji donc lan la kayit la dañ koy jël xoti ko mais ñu ko poser aussi confiance motax mu am jëm ñu jëmmal ko c'est la même chose il suffit seulement ñi ñi di ci gën duggu ñi ñi di ci gën duggu sur le plan international fofu lañ jëlé organiser suñu bop comme ñi nga xamné Pi Network international amna Pi Network Afrique amna Pi Network Asie amna na Pi Network euh, Union européenne donc non la mel et là ci biir tamit donc ay sous section à tout temps donc fi nga xamé moy mooy Network Afrique donc qui que diriger donc c'est un burkinabé Kenen ki ci top ki top ci ginnaam di vice président bi c'est un ivoirien Mom lañ nane leader Le leader de mom mom moy administrer déjà parce que chaque dimanche soir dañuy def ay réunion donc pour sensibiliser euh, la communauté africaine et là aussi fii au Sénégal man le leader pour ma porter projet Don président bi mais ci biir loolu li lay wan c'est international moy que ne bennaaw biñ créé li nga xamante moy p Network donc Cortim bi daf ñu ko bàyyee biñ ko bayé biñ ñu bayé dañ def sélection de vote pour benn Pi ñu coté ko ñaata dollars ki si jël deux avec 12 000 dollars mi ngi mooy États-Unis ginnaaw projet bi fa la sosoo waaye actuellement fu mu nekk nii mën nañ ne bu juddoo États-Unis ñu ngi ko ngéntee en Chine parce que Chine moo indi li nga valeur bi nga xamante international ñu ñëpp si lañ tënku moom lañ global consensuel value mooy valeur globale consensuelle di mm. qui est égal à 314 159. donc si suñu xaalis moom mooy 192 millions. Nous, mu def ak euro ak dollar. Nous, mu def ak euro à dollar Vous nañ parce que euro à dollar moi je ne tey jii boo en Europe ben euro ben euro pourquoi ben euro bobu nek en Europe ñewul fi au Sénégal mu doon ben euro mais déedéet naka dañ la naan est égal à trois du moins six cent cinquante six francs CFA c'est c'est anormal et là l'ol non rek may wonné avantage au Pi Network et Pi Network li koy wutaleeg monnaie bobu ngay tudd yi nga xamantene mom lañ xam c'est ça qu'on appelle les monnaies de l'État parce que l'ol, État yi ñokay créer te li tax ñu koy créer auparavant samay maam dëgg-dëgg xamuñu woon loolu da nga amoon loolu xamante ni da nga ko naan soxla li nga soxla man infirmier laa yow baykat nga léegi yow am nga produit boo guji léegi mais boo feebaree ku lay faj du man est-ce que xaalis amoon na boobu xaalis amul sa ji nga may jox man ma fay la sama service mais dañ dem ba moom benn moment boo xamante ne kenn mënatul kenn soxlootul woon sa moroom ma waral xaalis état am léegi après ça aussi amna biñ na la monnaie biñ ñu monnaie astami monnaie astan moy crypto monnaie il suffit tout simplement ñi ñi di si gën a dugg monnaie bi di gëna am doolé non la mel. tay dafa melni suñ ko déggé dafa mel ni xex euh, xeex li nga xam ni moom moo déséquilibre économique manam wàllum pauvreté ak li dafa melni ni jublukaay bi moy xex wàllum pauvreté. bu baaxa baaxa baax gennaw un pays en France demain un pays en France égal un pays en Afrique un pays en Europe un pays en euh, en Indonésie. en Malaisie en Singapour un pi fii ñu taxaw nii di Guédiawaye est égal à sur le plan international trois cent quatorze mille cent cinquante neuf dollars. loolu suñ ko déggee tey dafa mel ni wàllu immigration système la pour xeex nga xam ne immigration ndax li nga war a mën a dem wuti Europe si pays mu jox la ko foofu noonu boo toogee Sénégal it da koy am comme donc dafa mel ni jubluwaay bi xeexul immigration la bu baax a baax a baax baax ci ñaari anam laa la koy pàccee maanaam yow pionnier bi nga xamante ne. yaa ngi def wàllum jënd ak jaay donc suñu partenaire foncier bi nga xamante ne am nañ ko tey tey jii mën na jëf jëflanteeg ak ñun d'après écosystème bi nga xamante ne moom lañ teg muy liggéey ak waa Indonésie loolu noonu yëpp par le biais de Pitch and Melt parce que Pitch and Melt marché la boo xamante ne da fay teg sa produit sur le plan international te doo fay dara donc loolu benn pàcc la si beneen pàcc bi mooy euh, bu ma ñëwee ci li nga xamante ne mooy déséquilibre

waye di utiliser tamit ñi nga xam ne ñooy néew askan wi ngir mëna a jëm ci kanam donc nak loolu tay mom le Pi Network bëgg éradiquer sur le plan international. bo doon tënk rek Pi Network ñu koy tënkee Pi Network ñu koy tënkee lan la. waaw Pi Network donc lenn la muy kené ben benn monnaie la monnaie bo xamante do ko té mais si sa biir téléphone nga koy jël utiliser ko comme tay ji ak euh, écosystème biñ am ak aussi tamit partenaire machallah allah biñ ñu àndal ak ñeneen ñi ñu fi for yàlla ak ñok ñom ci yoon bi tey jii mën nañ ci jëriño kon donc nak on fait appel à toutes les entreprises de l'Afrique je dis puisque euh, c'est un ben leader la ci biir Afrique ben leader la ci Afrique parce que ñun ñep ñoy demando donc li nga xamantene mom la kortim bi jël wàccee ko

numérique qui est PINELWORK, La présentation est comme ça. Donc, justement, c'est quoi Pinel Walk c'est une monnaie numérique qui vient récemment de rassembler tout le monde dans une communauté pour les sauver. Pour, les sauver par rapport à quoi Pour les sauver par rapport à, tout ce qui est défi dans le monde. par rapport à la pauvreté, les libérer. Parce qu'on euh, constate que euh, L'Amérique est en avance, l'Europe est en avance, l'Afrique est, en arrière, l'Asie est au milieu, pour créer un équilibre, que tout le monde vraiment soit dans le même couloir qui, vaille au succès, raison pour laquelle P-Network est né. Pourquoi Parce que, comme euh, notre président vient de le dire en, en, Wolof, c'est le même point qui aux États-Unis, c'est ce point-là que nous consommons ici et c'est 304 dollars. Il y a beaucoup de euh, milliardaires qui sont dans le monde, qui ont beaucoup combattu cette, monnaie numérique, visant que l'Afrique ne doit pas participer, euh, ne doit pas connaître ça, ne doit pas utiliser ça. Mais concernant, en ce qui concerne le, fondateur, euh, qui est Nicolas Kokalis, et ses deux compagnons qui est Doris Yin et, Chen qui est d'origine sénégalaise, parce que c'est grand-père, ils ont beaucoup combattu euh, à ce que l'Afrique se bénéficie de cette opportunité-là. Raison pour laquelle moi qui vous parle présentement, il y a des, Américains, des, Chinois qui me contactent chaque jour, sachant que les points que nous disposons alors qu'ils n'en ont pas, on les a déjà dépassés par rapport à la fortune. Là, il n'y avait, pas ça. Parce que c'est le dollar qui était là, l'euro qui, qui, est fort, le franc CFA est un peu faible, maintenant c'est banni. L'objectif c'est d'essayer de faire en sorte que le taux de prévalence entre l'euro, le dollar et le CFA soit On vise que euh, euh, euh, le E, il vise que il doit y avoir one flag, one money, one map. Un seul drapeau, une seule carte, une seule monnaie. Pour que le monde s'équilibre le monde, tout le monde, il y aura vraiment euh, un, équilibre économique. C'est ça qu'il vise. Raison pour laquelle euh, il dit que ceux qui ont cette monnaie-là, alors qu'ils ne disposent pas un minimum de 10 points, de 10 points, alors qu'eux, ils ont la malchance. Parce que ceux qui détiennent 10 points, ils, seront les futurs milliardaires. Et ceux qui détiennent 1000 points, les multimilliardaires. Il y a déjà ici au Sénégal qui sont là, qui sont des, des, des, des multimilliardaires. Raison pour laquelle notre partenaire qui est là, connaît, elle connaît l'importance de cette crypto-monnaie et l'avenir de cette crypto-monnaie. Il y a plus de 208 banques qui ont adhéré. Récemment, la, la BCAO vient d'adhérer. J'ai passé là-bas euh, avant-hier. elle devait être présente, mais à cause qu'ils ont perdu un collègue, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être présents. Et ils ont accepté la crypto-monnaie, ils ont accepté cette monnaie numérique-là. Et c'est demain même qu'ils ont donné rendez-vous à, prononcer concernant cette monnaie, à, s'afficher officiellement concernant cette monnaie numérique-là. C'est juste aussi une manière de lutter contre l'immigration clandestine. Ça lutte contre l'immigration clandestine, ça lutte contre la pauvreté, ça lutte contre tout ce qui est euh, un facteur vraiment euh, regrettable. Regrettable. Pourquoi parce que c'est la différence de, la qualité, c'est la différence de la position, c'est la différence du poids, ou de fortune qui fait, qui fait que le monde est, déséquilibré. Les forts minimisent les faibles, les richards minimisent les pauvres, ceux qui sont fortunés, qui fréquentent les hôtels de, euh, VIP, vraiment, hein, minimisent hein, ceux, qui, sont dans la campagne, alors que c'est banni maintenant, au moment où je parle. Au fond, fin du salon, là où il y a des cases, tu verras des hommes qui ont des points et qui sont milliardaires et qui vont construire leur village, qui vont construire leur cité. Mhm. C'est nous qui ferons ça. Inch'Allah. Juste une dernière question. Maintenant, quel est le dispositif que vous avez mis en place pour pouvoir vulgariser cette monnaie davantage afin que les Sénégalais puissent connaître Il euh, y, a une seule voie, c'est d'informer les Sénégalais. C'est de les mettre au courant que nous sommes déjà en retard. Pourquoi Parce que l'Afrique est en retard, nous sommes en Afrique. Le Sénégal est en retard dans l'Afrique. Alors que pourquoi Parce que euh, nous n'avons pas pris le temps d'informer les autres qu'ils connaissent ça. Alors que depuis 2019, cette monnaie numérique-là est en train de sionner. Ils ont mis en place des, avions, des bateaux concernant le commerce, concernant les, voyages. Ils ont mis des dispositifs qui rendent l'homme dans des conditions extraordinaires. Raison pour laquelle la jalousie occidentale vraiment est en train de freiner l'Afrique, de freiner les fils africains, nous n'allons pas accepter ça. Comme ceux qui sont, euh, ceux qui ne sont pas présents, alors qu'ils nous voient et qu'ils nous entendent à travers cette, ces, canaux-là vraiment très disponibles, je vous lance, je vous donne une information. Une information. L'information, c'est quoi Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas laisser votre fils rater ça. J'ai dit, il y a un, grand-père qui m'avait dit que au moment où on voyageait, j'avais la possibilité de voyager, mais à cause des méchants, je vous dis que je ne, vais pas voyager. Il, m'a dit que je regrette. Je regrette pourquoi je n'ai pas voyagé. Quand il y a une nouveauté, il faut, il faut, euh, il faut euh, euh, se bénéficier, bénéficier. Maintenant, ce n'est pas que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est ça que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors qu'il n'y a pas de risque ici. Tu n'investis rien, tu ne donnes rien alors que tu gagnes. Raison pour laquelle, quand tu ouvres un compte, on t'offre un point. Ce point, c'est 380 dollars. C'est la valeur mathématique de pi égale 3,14. C'est cette valeur-là, mathématique-là, qu'on a évolué en monnaie numérique et que nous utilisons et que nous consommons. Ça équivaut à, 204 millions. Et là, si nous manquons ça vraiment, raison pour laquelle il y a une campagne euh, d'intelligence. il y a des Occidentaux qui donne des, personnes une forme d'argent, des biens, pour qu'ils achètent nos pays. Et quand ils nous vident de nos pays, au moment de l'effondrement notre territoire sera, vide. Et alors nous, nous revendent ça avec un taux très cher. C'est le cas du dollar là. Quand, quand, les gens disposent du dollar, il y a ce qui récoltent. Alors que ça manque, ils augmentent le prix. C'est du pari au même. Mais nous, qui sommes là, Profitons de cette chance-là. Profitons de cette chance-là. Il y aura d'autres cérémonies, d'autres organisations qui, seront vraiment mises à la disposition de la population sénégalaise. Et nous, nous allons sillonner toutes les entreprises. Nous allons, euh, nous allons essayer d'avoir toutes les bonnes volontés qui sont là et qui nous vont nous accompagner. C'est leur intérêt, ce n'est pas notre intérêt. Moi, je pouvais miner sans, euh, euh, mettre ça au courant de, de quiconque. Alors que ce que je dispose là, euh, j'achète, je vends, je bénéficie de ça et que ça me rend vraiment satisfait au moment où je vous parle. Là, si vous achetez ça, il y a des produits. Il n'y a pas de francs CFA, ni dollars, ni euros. Alors que tu rentres à la maison avec un produit. Tu rentres à la maison avec un produit. Ça, c'est du concret. C'est du concret. One money, one map, one flag.